ah mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb komba bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone gannaaw yof fa dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène junior mi ta ndaw ñi xamante ne nii moom mooy Kalmu Ndour Kolbu Zap dina fa jàkkaarloo ak Pape Double dina fa jàkkaarloo ak Pape Yekini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fu ak buusit te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu asalaamaaleykum mbokk yéen ñuy suivre ci seen site internet lutte tv point com ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare tey mardi 13 juillet 2021 ñu ñëwaat a yéen ci yéen kaay comme ni ngeen ko amee chaque jour ñu ci ànd ak waa Vice FM ci Gambie Mbirkilaan FM ci Saalum di jëmoo ak Babacar Sarr ñu ngi leen nuyu di nuyu seen auditeur di nuyu tamit ki nga xamante moom mooy Abdou Dramé ñu ñëw ci journal sunu làmb ak journal bi nga xamante ne moom moo di les arènes ñu commencé ko ci les arènes bi mu ginnaaw bi nga xamante ni tudd nañ ki nga xamante ni moom mooy Yaxya Jóob Yékini ci combat bi war a am le 31 juillet war a dox ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ni moom moo di Bombardier moo tax ki nga xamante ni moom moo di Abou Ndour xëy samp ci ab laaj taalal wala boog Aysatu Fay moom moo xëy samp boobu noonu ki nga xamante ni moom mooy Abou Ndour taalal ci micro ki nga xamante ni moom moo di Amadou Kati Diop ak ki nga xamante ni moom moo di Boy Kayre waaye nag li war a wax jooju nag mooy Yaxya Jóob Yékini nag gis nañ ne ki nga xamante ne moom mooy Bombardier wax na lien yi nga xamante ne am na ko ak moom xëy na loolu mooy li déranger Balla Gaye numéro 2 ba tax journal bi tey mu xëy def ci ab jàngat waaye nag ki nga xamante ne moom mooy Amadou Kati Diop bi nga xamante ne moom moo formé Yékini mu nekk ci làmb 15 ans daanuwul moom xëy na wax ci nga xamante ne moom mooy Yékini nee na instant bi moom nekkatul ci waxi làmb waaye bàyyi taxul mu bàyyi làmb moom mu ngi ci yeneen waaye nag nee na mu ngi organiser ay làmb maanaam talul wax yi nga xamante ne instant bi mu ñu gaa yi ñu ngi koy wax waaye nag la nga xamante ne daal moom wax na ko ñu ñu titre ko mooy xëy na Balla Gaye numéro 2 dafa am jalousie ci ki nga xamante ne moom moo di Yaxya Diop Yékini peut-être loolu moo tax muy wax loolu moom Amadou Kati moo wax wax jooju la ki nga xamante ne tamit moom mooy Boy Kayra moom tamit indi na ci ay leeral jàpp na ni daal instant bi Yékini moom nekkul di jàppale benn benn benn benn benn mbër maanaam contrôle ki nga xamante ne moom moo di Balla Gaye numéro 2 ak lu mën a xew daal journal sunu laam moom nee na ndax lii nekkul bataille psychologique rek pour dox ci xelu ki nga xamante ni moom moo di Balla Gaye numéro 2. loolu moo andi woon polémique keroog seen jàkkaarloo leneen li indi woon polémique ci seen jàkkaarloo mooy ndax Modou Lo roi des arènes nam la wala du roi des arènes moom Balla Gaye numéro 2 li mu leeral daal mooy Modou Lo mën naa nekk roi des arènes de waaye moom Balla Gaye numéro 2 Modou Lo nekkul roi des arènes am te nee na. Balla moom nee na waaye ak lu mën a xew na nañ xam ne daal roi des arènes moom benn valeur amatu ko maanaam amatul benn sens li am solo moom moo di def ay performance moom noo Balla Gaye numéro 2 nag na taxul mu sabote ni Modou Lo mooy roi des arènes waaye nag moom am na droit ni Modou Lo du roi des arènes loolu polémique la bu nga xamante ne amoon na fële ca keroog signature bi doxoon ci digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Bombardier ba léegi rek dañu des ci journal bi ak ki nga xamante ne moom moo di Papa Sow moom démb tamit def na jàkkaarloo ak presse bi waaye ak lu mën a xew daal wax na ci digganteem ak ki nga xamante ni moom moo di Siteu indi na ay leeral tamit lan moo tax keroog mu waat ni day ki nga xamante ni moom moo di Siteu waaye wax na tamit ci diggante Modou Lo ak ki nga xamante moom mooy Siteu maanaam mbo maanaam lien yi nga xamante ni séq nañ ko te ni leen Modou Lo moom nañ ko génnee ci combat boobu ndax Modou Lo moom defu ca dindiwu ca Papa Sow daal yaatal na démb lu bare bare bare bare ci digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Siteu waaye nag ak lu mën a xew nee na bi dina wuute lool lool lool lool lool ak yi nga xamante ne jotoon nañ fee jaar maanaam digganteem ak Ama Baldé digganteem ak nga xamante ne moom moo di Lac de Guiers bi dina wuute lool lool lool ak yooyu noonu kii nag bëri na bu yàggul dara am ndam muy caat booy bambara waaye ba mu pare nag wax na ñi nga xamante ne moom la war a bëreel nee na Moussa na ko jox sens Garga Mbossé na ko jox sens loolu wax ci journal bi nga xamante ne moom moo di les arènes neen nag instant bi il temps moom nag mu occupé place ne moom am ko ci làmb ji bi nga xamante ne moom mooy journalu sunu làmb fekk fa Balla Gaye ne moom moo di Bombardier mu ñëwaat ci seen face à face bu tàng jër bi nga xamante ne amoon na barki démb fële ci 2STV bi mu mel ni ñëwaat na ci kàddu yi nga xamante ne rek ñaari mbër waxante nañ ko moom Bombardier nee na moom ak lu mën a xew daal Balla Gaye na xam ne moom du ragal moom Bombardier man amul dara dara loo xamante ne daf koy ragal te nee na bu fekkee ne xeex walla mu xeex ba Balla Gaye numéro 2 dafa pare pour ñu def ko nee na pare na pour xeex ak moom ba dugg boîte vocale waaye leneen la nga xamante ne ambition am la moom Bombardier mooy nekkaat roi des arènes pour troisième fois comme comme comme ni mu ko nekkee woon rek waaye nag nee moom benn ambition rek la nekk moom la am pour nekkaat troisième pour nekkaat trois fois. roi des arènes ginnaaw ba mu ko nekkee ñaari yoon Balla Gaye numéro 2 nag comme tontu du forox tontu na ko nee ak lu mën a xew nee na day ñëw jël revanche par A ou par B maanaam daan bi nga xamante ni Bombardier daanoon na ko day ñëw fayu le 31 juillet su ko neexee day fayu su ko naqaree tamit day fayu leneen la nga xamante ni dànkaafu la mu jëmale ko ci Bombardier nee na Balla Gaye numéro 2 bu 2014 wute na lool lool lool ak Balla Gaye mi nga xamante ni mooy bu 2021 bi loolu yàggatul le le 31 la juillet la incha allah ca arène nationale ba yàlla ñu ko fekkee tatal ko Forza muy bëree combat spécial ba moom ak Faka moom ak Pakala Forza bu Fass Ndakaaru nee na ak lu mën a xew moom moom day daan tamit ki nga xamante ne moom moo di Pakala ginnaaw boo ko Pakala daanee le 4 avril 2012 moom nee na day ñëw fayu te Pakala su bëggee ñu teg li nga xamante ne moom mooy seen reliquat. bu ko defee ku daan daal di jël ñaar yëpp parce que la ma ko daanoon moom wax ja bariwu ci comme moom moo daanoon jàpp na ne moom instant bi màgg na tey expérience bi ñëw na yokk na bu baree baree baree bare kon nag moom Pakala nee na waxam ci bëri day xaar rek bi génn ci digganteem ak ki nga xamante ni moom moo di Forza bu ko defee ñu daal di jëflante bu leen ko fàtte nag combat mu ngi mu ngi daw ci seen affiche point com ba léegi rek dañuy des ci journal sunu làmb caat fekk nañ ko ci journal waaye fekkaat nañ ko ci bi nga xamante ni moom mooy journal sunu làmb moom tamit caat fee tuddoon na fa Garga Mbossé ak Moussa Ndoye waaye fii yokkaat na fi Sa Thiès ak ki nga xamante moom moo di Malick Niang ak lu mën a xew moom caat moom séq na ak waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Dieye ku jënd journal sunu làmb di nga ko fa fekk ku ñëwaat ci journal sunu làmb di nga fa fekk Modou Lo di nga fa fekkaat tamit ki nga xamante ne moom moo di Papa Sow moom Modou Lo wala boog moom Papa Sow muy dànkaafu ki nga xamante ne moom moo di Siteu nee na Modou Lo du dara dara dara ci combat bi nga xamante ne ñoom ñaar nar nañ koo séq mu nar a am le premier août incha allahu rabbi fële ci arène nationale combat bi taxaw na pour saison deux mille vingt et un deux mille vingt deux mu nar a dox ci Siteu bu Kaolack ak Gambien ginnaaw bu Gambien jóge ci benn combat digganteem ak assurance bu Mbuur waaye nag combat boobu noonu. daf koo ñàkk Siteu tamit tey dina jàkkaarloo ak presse bi tey ci mardi bi fu fële ca Lamsaar daal di yëy yàbbi ci kàddu yi nga xamante ne Papa Sow démb yëkkati na ko waaye nag arène nationale ba keroog manqué wul woon ay mbër ndax Moussa Ndoye nga fa woon caatu yaraax ma nga fa woon pour jàppale ki nga xamante ne moom mooy au sud bu Serigne Diour waaye nag santaan ñi ngi tamit ma nga fa jàppale ki nga xamante ne moom moo di Modou ja Balla Gaye numéro 2 moom rakk ja ma nga ci ginnaawam dar ko muy Sa Thiès foofu fu mu jëm rek moom moom la ñuy gis ci ginnaawam ndax gis nañ ne fu mu jëm ci ay face to moom lay àndal moom Sa yaakaar naa ne loolu mooy wareefam Jamaïcain mu ngi waajal le 14 août incha allahu rabbi fële ci stadium Iba Mar Diop diggante Pape Ndoye ak Abou Ndiassé moo tax instant bi mu ngay taxawal ay combat préliminaire am ay combat yu saf sap sap moom la Jamaïcain di taxawal ndax taxawal na combat Siteu bu Ngor ak ki nga xamante ne moom mooy Franc Mbeur ñaari xale yi nga xamante ni mbooloo mu baree baree bare bare la indi suñu bëri ak lu mën a xew combat le 14 août la ci arène nationale ak Jamaïcain assurance Malick Diop nag journal sunu lamb ñëwaat na ci ñoom gannaaw bu mu génnee àdduna dimanche bi passé incha ñu koy ñaanal ko xaare ko aljana mu mel ni daal ñëwaat ne ci parcours bi nga xamante ne moom assurance Malick Diop def na ko 1954 ba 1975 ñu ñaan yàlla yàlla yërëm ko xaare ko aljana moom ak mboolem bi jullit ñu nuyu ñuy suivre luttetv.com yëpp fu waay mën a nekk si àdduna bi rek ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di leen bëggee di di nuyu tamit waa groupe xew-xewu lamb ji groupe Lutte TV duma leen fàtte. ñoom tuuti yaay Sarr Omzo bu Garga Serigne Diour bu Osod ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Mansour Kassé borom États-Unis doomu ndeyu Lori Diagne ñu ngi koy nuyu di nuyu ñoom Mafal di nuyu tamit ki nga xamante ne Mor Ndiaye ñu ngi koy bëgg lu bëree bëri bëri di nuyu tamit xew-xewu làmb yëpp comme ma ko waxee ñoom Cheikh Bass Kër Massar ñoom Pape Demba ñoom Abdou bu xarañ loo ñoom Max ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee di nuyu ñoom Amdi Moustapha nga xamante ne moom lu yàqu ci réew mi rek moom am ni Moustapha moo ko yàq waaye Modou Darou Mokhtar Lo nag ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp di nuyu nag le grand marabout sëñ Cissé ba sëñ Babacar comme nag léegi neen na dama daf maa mere maa ngi koy bégge bu baax a baax di ko ziare léegi jaan wax na ma sa yóbbante sëñ Cissé ba sëñ Babacar si maa ngi lay nuyu bu baax di la ziare waaye nag du ma fàtte waa Baye Parfum di leen ziare ñoom pap ñoom papi ñoom ñoom ñoom càndum ñoom alaaji Malick ñoom Kaatim ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee di bëggee tamit seen xarit seen mbër wulli maa ngi koy ziar bu baax a baax di ko di ko di ko waat moom tamit du ma ko fàtte di nuyu Omar Fall depuis Italie di nuyu di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy Mor Jaxate Malick Ba di nuyu tamit ñi nga xamante ne duñu bàyyi di commentaire li nga xamante ne moom mooy revue de presse bi ñu jukki ci quelques personnes rek ndax yaakaar naa ne lim ñëpp du nekk luy yomb ñu commencé ko ci ki nga xamante ne moom moo di Bouba Fall ñu ngi koy bëggee di nuyu Cheikh Bass Kër Massar di nuyu tamit ki nga xam di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Daaru MT ñu ngi koy bëggee di nuyu tamit Pape Cissé bu Mama Lamine di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Bass Kanji Serigne Mbaye Diagne Mister Rolex Seydina Aline Borom Dias ji Dambe nga Xatab juuf Do di nuyu Dieng Ibrahima Yacine bu Balla Gaye numéro 2 Ousmane Ndiaye lay Ponte Dra. la su liggéey bëgg nañ la di Kalaam di nuyu Abdou Diallo Modou Seck bëgg nañ la Cheikh géey wala Cheikh Seck loo ci wax ànd jële fi kooku noonu kii kii moom turam bi dama ko wax ànd fi jële fi président loolu la wax ñu wax ñëpp rendez-vous suba incha allah.